jéggalu ci kàddu gu ñuy yëkkati ci suñuy kanamu kilifa ndax tey eh, bisug bii xew tey yaakaar naa ni gëj naa am walla mën naa ne te sañ naa wax ni mësta am ci tund wi mësta am ci tund wi soo ko déggee mooy tey ñu am sëñ Abdou Odoot mii toog suñu wet mii ànd ak délégation bu am solo sëñ Afia Mbakke mu sëñ Abdoul mu sëñ Moustapha Mbakke mu sëñ Abdoul Karam mu sëñ Afia daanaka kon sëñ Afia tamit mu ngi fii toog mu mag ma ñu ànd ak doomi soxna yi nga xam ne li may wax chaque jour moom laay wax rek ñoom lañ yaakaar àdduna ak àllaaxira ñoo ngi leen di nuyu di leen jox seen wàccuwaay di sant bu baax a baax a baax ci teew bi ngeen fi teew waaye nag ngeen may ma tuuti ma beral nuyoo ak ngërëm ak cant monsieur le sous li ma waxoon barki démb rek laay waxaat tey nekk ak yow ak bokk ak yow jotaay dafa may neex trop ndax administration daf ñoo boole waaye nag buur ak jaamam daf ñoo boole waat diggante pël ak séeréer yaakaar naa ne euh, mën naa ne kenn mënta bëgg dara ci réew mi wala kenn mënta xëccu dara ci réew mi te ànd ak ñoom kon suñu ànd yàlla moo ko sos suñu ñëwaatee na ba tey ñu nekkaat ak yow fii dañ ci am mbégte lu tax ndax man de bi nga fi ñëwee ba tey gis naa sa teewaay ci ay cérémonie ci biir commune bi loo xam ne amul ku la fi mës a ñi nga fi uutu ñëpp daanaka mën nañ ne yaa leen ëpp teewaay ci biir commune bi cérémonie bi lu mu ndaw ndaw ndaw lu mu xat xat xat soo fa àggee di nga fa fekk monsieur le sous-préfet kon ñoo ngi lay sant bu baax. di la wax ne nag ñu ngi lay ñu ngi bëgg ci sa li ngay def ci askan wi li ngay def ci goxu Pàmbaal bi su ma duggee sa bureau nga ne ma monsieur le maire man la monsieur le maire ndax fi ma li ma wax dama ko xam xam nga ko dañ la fi àndi ngir liggéey ak sous préfet waaye yaa ngi fiy doxal taxawaayu maire ndax sous préfet dañ koy andi ngir administration territoriale waaye yow da ngay def administration territoriale ba pare da ngay may yaa ngi jël sa loxo di ko dugal ci développement wu commune bi. kon yaa ngi doxal sa rôle waaye tamit yaa ngi doxal rôle lu maire ñoo ngi la ciy sant ci turu dëkk bi yëpp ci turu askan wi yëpp. li ma waxoon nag laay waxaat yoonub sëriñ tuuba tànk kanam lay am waaye du mës am tànk ginnaaw ñaari bâche lañ daan luye yaakaar naa jëwrin bas ñaari bâche wala ñetti bâche lañ daan luye tey. waxuma ñaari baas sax waaye ay sponsor sax commencé nañ koo am tey ci tribune ci tribune lañ toog tey yaakaar naa ku dugg ci bâche bi rek soxol soxol sedd mooy lii mooy yoonu sëriñ Touba tànk kanam rek la amul tànk ginnaaw moo taxit fu ma toog damay soññ samay moroom nee na ñuy gën a góorgóorlu ak nu ñu mën a mel yoonu Serigne Touba nañ ci gën a góorlu moo lay fay fii fay la fa nga jëm. moom dalay fay fii fay la fa nga jëm da nga koy lebal junni mu jox la fukki junni fii nga ñëw àll yowmal xiyaama mu jox la ñaar fukki junni kon koo ko jara lebal nañuy jël suñuy dërëm di ko def ci yoon parce que murit kat loolu mooy identité bi ndax yoonu lislaam ñëppay julli ñëppay woor ñëppay julli ñëppay woor waaye nag fa ñuy amee différence mooy liggéey sukk raam joxe ko joxe àddiya kon ñun nañ ñuy gën a fekk ci loolu waaye nag ku ñëw Pambal gii soo yeewee suñuy maam suñuy maam fa ñu tëdd nga leen Pambal de fii la toll dañuy sant yàlla bu baax dañuy sant yàlla bu baax ndax ku ñëw Pambal ñu ne sëñ ba xaw ma ñaata ñaata kaamil lañ fi wàccee tey yaakaar naa ne ci ñoo xam ne daanaka baa alifun sax xamuñu ko woon loolu yoonu sëñ tuubaa amul tànk ginnaaw tànk kanam rek lay am lépp sëñ bee nag. du kenn de kan moo ñu ko jàngal kan moo fi mën a lim benn ustaas bu ma bu ne moo jàngal lii waa Pambal kenn kii day ñëw jàngale dem kii ñëw jàngale dem waaye nag lépp sëñ bee tax ñu mokkal kon ñoo ngi sant bu baax tey nag bés bi pour ma wax ci borom bés bi day xaw a jafe ndax daanaka moom mooy sama àdduna mooy sama àllaaxira bañ ma juree sama way jur wii moom moo ñëw tudd ma ba ma matee am soxna moo yëkkati soxna jox ma lu may xëccoo mooy yëkkati sama loxo ne ma demal wala bul dem kon kay man aw ma lu may wax ci bés bi man mooy sama àdduna ak àllaaxira kon pour ma wax ci moom day jafe lool ndax daf ma defuma defuma defuma ak taalibe defuma ak doom daf ma def xarit ndax ñu bari dañ naan yow de sëñ Moustapha de lam lay defal de ma di gisuma ko mu koy defal ak nu muy wax ak yow ak lam lay lam lay lam lam lay may gisuma ku mu ko may ci taalibe kon xarit la ma def moo tax su leen fi yebalee ngeen agsi fi ma damay sama xool moo tax tey mënumaa wax damay bëgg ngeen jëggal ma ci kàddu gi rek ma jox ko sous-préfet mu wax waxaaleel ñu waxaaleel président de la république waxaaleel monsieur Ba mi mu fi toog ndax soo gisee ñu xaw a yéex sànq sax tey jii ministre de la femme dafa ñëw département Tivaouane fa lañ nekk nii ak jigéen ñi ngir andi leen seen financement yi moo tax pour commune Pambal il fallait que ma dem am yu ma fa bind ngir mën a accès looloo waral retard bi ma am sànq waaye maa ngi ciy jéggalu waaye jàpp naa ne neex na Serigne Touba ndax lañ doon defi dañ doon andi koom-koom bu jëm ci Pambal pour jigéen ñi kon xam gëm naa ne neex na Serigne Touba. moo taxit faxi na ba jotaay bi jeexul fekkee naa ko jox naa ci kàddu kon monsieur le sous-préfet ñoo ngi lay sant bu baax une fois de plus ci sa teewaay di la jox kàddu gi euh, di gërëm ñëpp nag tey moom wax ji mënta jub ndax sama xol sedd sama xolo sedd guy jërë ngeen jëf aouzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaam ala ashraf almursalin mbokk yi fi teew asalaamualeykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah di leen nuyu ci kàddu président de la république jaarale ko ci ministre de l'intérieur ci gouverneur ci préfet ba egg ci ci sous-préfet bu Pambal Ibrahima la Ba ni ko maire waxee léegi rek amoon na yéene nam ko doon defee at teew fii bokk at yéen ndaje bi dakaar la ne woon dafa ñëwoon ngir teewe bés bii yàlla def préfet woo ko ni ko monsieur meer waxe yëgal ko ne liste la femme ñëw te goxam bokk ci ñuy saytu moo waral mu yebal ma fii tey kon lu ñu fi wax ci kàddoom ci lu rafet lu dëng itam ñu xam ne ci ndawam bi toog fii te motadi moo ko mottaliwul ginnaaw loolu sëñ bi ñu lay nuyu di jaare sunu nuyoo ci say loxo nga yëtal ñu ko tegal ñu ko ci loxo yu tedd yi xalifatul am muhammadul taxa mbàkke yàlla na fi yàgg te wër di nuyu itam ay ma yi nga xam ne ñu ngi ci gox bi asaatis yi fi nekk ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen sant ñoom basiiru As ñoom Imaam ñoom sëñ Maxtaar sëñ Mbàkke ñun ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen sant di ñaan yàlla yal na yàlla yàggal seen taxawaay yàlla dëgëral seeni cër. ci liggéey bi nga xam ne ñoo ngi koy liggéey ci dëkk bi di nuyu itam chef de village yi nga xam ne ñoo fi teew ak ñi nga xam ne ñoo jóge ci dëkk dëkkaan yi fi nekk moo xam ñoom Bokar ñoom Louis ñoom ñépp ñi fi nekk ñu ngi leen di nuyu sunu toogaay fii nag dafa weesu rekk toogaayu sous-préfet walla ndawu buur yàlla dafa ñu fay indi ci dëkk bi ñu jàpp ne suñu teewaay fii lu war la dañoo bokk ci dëkk bi tey ci Pambal ku waa Pambal dañu ñu siy boole fii lañuy xëy fii lañuy ñuy gont fii lañuy ñuy yeew fii la fanaan te la tax ñu am ci sawarte mooy dañoo ñëw waa Pambal kilifa diine yi kilifa aada yi gasanduñu teral ñu yaatal ñu boole ñu seen biir kon nit ki bu la xëcc ci boppam liggéey ak moom dafay yomb kon li monsieur le wax dañ koy delloo njukkal rek comme ni ñu koy waxee moom mooy le premier magistrat de la ville kon dañ koy ñaanal yàlla rek la mu fa am yéene yàlla mottali ko te lépp lu mu bëgg ci dëkk bi te mu gën ci dëkk bi yàlla na ko yàlla def di ñaan yàlla itam li nga xam ne mooy sunu président de la république son excellence monsieur Macky Sall la nga xam ne mu ngi koy mébét ci dëkk bi itam si sëriñ yi toog lañ koy mën a jaarale ndax seen ñaan yàlla nangu ko am nañ ñoom yaakaar président kat du kenn ku dul capitaine de bateau la nga xam ne mu ngi koy liggéey ci dëkk bi ku nekk yaa ngi ciy teg sa bët. kenn nag mënul motal lépp yàlla rek a mot waaye kay jéem nekk ci lu baax buñ ko jàppalee mu dem te yaakaar naa jéego yi nga xam ne président bi ak gouvernement bi ñu ngi koy teg amuñu ci benn ma yàlla liñ ci jublu te yéene ko ci mooy dëkk bi jëm kanam askan bi jëm kanam yaakaar naa duñ ko fi lim ci gox goxaan yi ku nekk xam na jéego yi nga xam ne ñu ngi fiy def moo xam PUDC bi la. jàppale ndaw ñi jàppale jigéen ñi jàppale askan bi moo xam ci mbiru jàngale mi la ci mbiru faj bi la président gudd suba ngoon guddeeg bëccëg mu ngi ci mu ngi ciy góorlu yal na ko yàlla may doole ak kàttan bi mu eggalee matale yéeneem ci réew mi ñépp nag mun koo bokk bu ñu fi yàlla indee dafa am lu sëñ Maxtaar wax sànq euh, sëñ Mbàkke li mu wax sànq ci waxam muy jàmm ji ñun senegaal dañoo war a ñaan yàlla yokk fi jàmm ji fi ne la fi nekk nag ëpp naa xeeb nde nit lu la yomb rekk da ko gis waaye ku sànni sa bët ci gox ak dëkk dëkkaan dëkk yi ñu wër nga war a sant yàlla bu baax a baax moo xam Mali la moo xam Guinée la moo xam càdd la moo xam Congo la ñu ngi fay rey ay doomu aadama suba ngoon guddeeg bëccëg ay nit a ngi reyantee silu ñàkk fayda kon bu ñu yàlla mayee jàmm ji nañu ñaan yàlla si barke mag ñu tedd ñi fi nekk yal na ko yàlla saxal waaye nag dañu ne mbay sawewu tànk jàmm ji naam dëgg la mag ñi liggéey nañ ko mag ñi ñaan nañ ko waaye nag ñun dañoo war a jàppale mag ñi ci taxaw si tànk yi ñu taxawoon ngir jàmm ji mun fee wéy lu ko moy rek ñu gis leneen ku ne xam na Irak ñu fa tëdd saxaaba rek fa nekk te ku ne xam ne la fa dund ci ay musiba ci ay coono ci ay mbugal ak ci ay nattu kon nañu delloo sunu xel tuuti te di ñaan yàlla jotaay yu mel nii yàlla nga tax ci yoonu siraatal mustaqim yal nañu yàlla defal bépp yiw bu ñu fi yaakaar yal nañu yàlla boole ci ñi nga xam ne ci jotaay yi diine duñu fa jóg lu dul yàlla da leen jéggal seeni bàkkaar yal ñu ci yàlla boole ñu dellu rekk li may wax ginnaaw nu ñuy jaamu yàlla gëm yàlla yaakaar yàlla teragal yàlla ñu fexe xam sunu diine àdduna bi jeex na metti na yàqu na te nit ñi xam nañ ne la mag ñi sonnoon la ñu dajoon ngir taxawal fi diine nañu fexe ba puso bi bu ñu ree bu mu réeree su suñuy loxo nit ñi ñu ngi bàyyi seen yoon kon sëriñ yi ñu ngi leen di ñaan yàlla ngeen delloo nit ñi ci diine ci yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam at mag ñu baax ñi nga xam ne wax nañ ko liggéey nañ ko doxe nañ ko lu fi waaye mu ni am lu fi waaye mun ti fàggu te tegoo ko si saatal mustaqim perte nga àdduna perte nga àllaaxira nit jaru ko alal jaru ko daraja jaru ko ndomal tànk jaru ko lépp lu ñu dénk doomu aadama ci lépp loo nekk nañ ci xool sa boroom ñu mag ñi mag ñi dañoo liggéeyal yàlla ba xëy de amuñu jot lekkuñu naa naanuñu taluñu dara dul yàlla ay yonente bi la nga xam ne bind nañ ko wax ko liggéey ko nañu topp seeni tànk bu ñu bëggee yiw àdduna yiw àllaaxira nit ñi nañu waxante dëgg sàmmonteeg dëgg te bàyyi naafeq dëkk bi yàqu na adduna bi yàqu na ki lay nuyu tey moo la gën a jéppi xol yi ñoo feebar xol yi ñoo feebar nañu fexe ba defal xol yi munta wàcc mukk ci ñun jàmm tànk xol yi ñu ngi féewaloo dañuy sant sunu borom nag ba yàlla ma ñu ay kilifay diine yu ma diine tey senegaal gi sant yàlla xàmmetoo murit xàmmetoo tijaan xàmmetoo laayeen ñépp dañoo booloo bokk ndekk bokk ndey bokk baay jëpp jëm jëm bekk jëmukaay laasanoo benn mbir yàlla nañ defal yàlla defal yiw boobu yàlla defal ñu jàmm tawféex laayante biir si wax dëgg ak jaamu yàlla ak di jéggalante ak di jëlale am nañ yaakaar nag sunu kilifa yi toog seeni maam de am na lu leen yàlla mayoon am nañu relation bi amoon ci yàlla lu leen ko may mooy jaamu yàlla ak liggéey nañu sax ci jaamu yàlla ak liggéey kon ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaar ñëpp di gërëm ñëpp tàppe xol yi nekk benn yeneen te jàmm te gëm lislaam tey ñu ngi jëm ci weer bu am solo weeru ramadaan ñu ngi ñaan yàlla may ñu fekk ko ci bismillaahi rahmaani rahim